màggalu weeru koor gi ci Sénégal ak anam yi nga xamante ne a moom lañ ko màggale ci Sénégal kàddu yi tukkee tamit ci kilifay diine yi ñi nga xamante ne ñoom ñëpp daanaka sàkku nañu jàmm ci réew mi waaye tamit booloo bi nga xamante ne askan wi ñëpp war nañ ko mën a def ci feetub korité gi tamit le quotidien yéene kay ñëw na ci mu di kaat ci kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi yëkkati na ko gannaaw ba mu jullee ba noppi ca këram yéene kay ma jàmbal jaan bi di xam ne ni kon diggante korité ak ascension njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi Macky Sall di sàkku nag jàmm diggante Israël ak Palestine waaye tamit taxawaayum Ndakaaru ngir ñu jëmmal état palestinien bi nga xamante ne ñu bëri ci askan yi foofe moom lañuy ñuy sàkku moo tax ci le quotidien njiitu réew mu Sénégal nag di sàkku ay waxtaan dëgg diggante ñi jiite Israël ak Palestine Le Soleil yéenekaay dikkaat tamit ci julli korite gi ci Sénégal wax li mu dajeek ascension ngir mbokk chrétien ni kàddu yi nga xamante ni tamit njiitu réew Sénégal yëkkati na ko bokk na ci loole li muy sàkku jàmm ca Palestine ak Israël tar ci quotidien national njiitu réew mi Macky Sall di sàkku tamit ay waxtaan yu dëggoo diggante ñaari réew yi waaye tamit taxawaay bi nga xamante ne Sénégal am na ko li njiitu réew mi di sàkku daanaka moom tamit li imaam yi doon sàkku ci julli korite gi ci diggante Israël ak Palestine ba tey ci biir la Le yi ci proche orient boobee Vox Populi di xam ne ni kon ONG islamique Jamra tamit yëg na bu baax liy xew ci diggante Israël ak Palestine ba tax muy ñaawlu bu baax fitna ak noot bi nga xamante ne ñu ngi koy teg askanu Palestine moo tax ci Vox Populi ñi jiite Jamra nekkoon dañuy déposer ab lettre de protestation ngir ñaawlu li nga xamante ne moom moo xew ca dëkk ba ca ambassade bu Israël ci xet bu njëkk Vox Populi tamit fësal nañu kàddu xalif général kullu mu Ousmane Sonko gannaaw ba mu ko dalalee ca diwaanub Touba Mbàkke moo tax yéene kaa bi di xam ne ni kon moom Sonko ci boppam du teel a fàtte tukki bi nga xamante ne amal na ko ca Touba ndax xalif général kullu murid ratewul benn yoon occasion bi ngir wax ko dëggam ak li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci moom bokk na ci jàmm te benn bakkan bañ rot ci dëkk bi ngir ay bëgg-bëggam l'observateur di ko ci feelu muy wax dëgg yi nga xamante ne kon Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati na ko jëmale ko ci njiital Pastef bi yéene kaay groupe Futurs